sëriñ bi tey lan nga ñuy jox. Mhm. ci julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Mhm. ay njëriñam. Mhm. ak yan tegtal. ak euh, lan mooy salaatu ala nabi. waaw salaatu ala nabi mooy julli ci yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam sallallahu julli ci yonent bi nag du caagin ni teg sa sajaada allahu akbar asalaamualeykum. Mhm. waaye mooy ñaanal yonent bi mooy ñaanal rasulullah ñaanal rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mooy li nga xamante ne nii képp ku koy def mhm. yàgg yàlla yéen a bokk di ko def ndax moom moo ko digal malayka yi ni ko yemul ci digal leen ko dani dama koy def defandoo leen ko ak man maanaam julli ci Seydina Muhammad julli ci Seydina Muhammad yàlla moo ko njëkk a def moo a def ànd ceeg malayka ànd yi nee bu leen ci yem nag na ko mortal wasallimu tasliman mhm. bu leen yem rek ci julli gi léegi nag mooy li nga xamante ne fi nekk képp koo xam ne yàlla dogal na nga bëgg ñaanuk suñu borom. Mhm. di wàcc ci yow del julli ci yonent bi. maanaam loo ngay sàkku dara mu dëgër. mu dëgër del julli ci rasulullah del ci yonent bi. maanaam nga xamante ne heure boo xëyee nga ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. Mhm. suñu borom ci boppam moom moo lay ñaanalal boppam. allahu akbar. waaw ndax ndax nee na benn boo julli ci moom. ma julli ci yow benn fukki yoon nga julli ci man moom fukki yoon ma julli ci yow junni yoon te junni yoon boo julli ci moom sa yaram araamal na sa war allahu akbar kooku bokk na ci fonk gi ko yàlla fonk li tax ñu war koo fonk di julli ci moom mhm. xataa badaakat bu sama fi arsikal muazimi boo demee aras loo fay gis laa ilaha illa mu fonk ko bind nañ ci turu yonente maanaam moom rek la yàlla jël turam waaw taf taf ko turu rasulillahi ba Seydina Adama tooñee sunu borom ba sunu borom war koo jéggal mhm. jéggal gu ba mu ko nee dañu ko jéggal ma ngir ci ci ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko foo xamee kooku mu ne ko damaa gis ni loo sopp lu nekk rek bind nga fa turam ma xam ni doo bind doo bind turu kii foo xamante ne ni dara dara ne fa uhuh. waaw moom moom yonent bi julli ci yonent bi dana tax am ci kër yi kër yi nga xamante ne mooy këru abraar yi ñu tedd ñi biir àjjana di julli ci yonent bi dina la may ci kër yooyu uhuh. julli bi dana tax a bari ay soxna biir àjjana julli ci yonent bi dana tax ñu jëggal la say bakaar julli ci yonent bi dana tax ku la gis sopp la mhm. te xanaa xamoo ne alaaji pap julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaw loo xamante ne nii eh, yaa ngi doog a dugg budd àdduna amagoo soxna amagoo dara mhm. ngay julli ci yonent bi di julli ci yonent bi ba mu sax ci sa deret mhm. doom joo jur kenn du ko yërëm allahu akbar loolu julli ci yonent bi moom moo ko maanaam buy bëri looy julli ci sidina Muhammad waaw doom joo doom joo jur kenn du ko yërëm ko yërëm moo xam yaa ngi ci biir sëy moo xam nekk amagoo soxna amagoo soxna maanaam ki mu dàq sax maanaam ki nga xamante ne daa nekk xale rek tàmm di julli ci yonente bi ba mu dem ba jaxasoog deretam lu mu jur loola day baax allah loola day barkeel ndax lan yàlla moo fonk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam salaatu ala nabi mhm. dana tax mbooleem lu bakkar rëy rëy rëy rëy rëy rëy ak lu mu metti metti metti boo boo ca saxee sunu borom effacé la bakkar yooyu julli ci yonente bi fi ne nit ki dina julli mhm. julli yi ko yàlla digal muy julli juróom mën na koo julli ba pare sunu borom taxañ ko ko sànni ko ko nit ki mën naa woor weeru koor ba koor gi jeex. Mhm. ñu taxañ kooram googu du ca am lu dul xiif ak mar. nit ki mën naa def leneen lu yoo xamante ne nii ci ay jaamu yàlla la. yoo xamante ne yàlla mën na koo bañ a nangu. waaye salaatu ala nabi ak noo ko mën a defee sunu borom nangu ko. allahu akbar te bu bis pencee kat. fi fi ne boo xoolee salaatu ala nabi nit ki bu fekkee nii mi ngi koy liggéey dëgg. Mhm. bu bis pencee ku mu mën a yoreel. mën nañoo jël jël julleem jox ko jël kooram jox ko jël asakaam jox ko waaye salaatu ala nag moom yow mi ko def rek la ñu man maanaam àq bi nga ameel doomu aadama àq boo mën a ameel doomu aadama mën nañoo jël ci say julleeg say koor lépp jox ko ba mu des salaatu ala nabi allahu akbar loolu yàlla moo fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu waa ji bari na doole kenn du sallallahu alayhi wa sallam kenn kenn kenn du moom billaahi te te te bari na ci ay salaatu yoo xam ne bu fekkoon tey ji euh, euh, li ma bëgg nga xamante ni ndaw ñi tey jii mbëkk gi ñuy mbëkk gaal yi mhm. am na ci salaatu yoo xamante ne buñ ko téyoon buñ ko téyewoon di ko liggéey daraja maanaam euh, euh, coono bi ñuy daj ci ndox mi bay àgg bitim réew ak lañ fay daj ak yooyu buñ ko dajee ci salaatu bi salaatu bi jox leen lépp maanaam am nañu ne ci réew mi sëriñ bi jamono yi ñu toll nag waaw ah. euh, mbir mi dafa dëgër dëgër lool dëgër am na ci ñoo xam ne ñu ngi xool seen i way jur mhm. amuñu lu ñu leen jox waaw ñii ñu ngi xool seen i doom di xool seen i soxna mhm. amuñu lu mais ndax mën nga am foo jaar ak nit. Mhm. jaar ak salatu mhm. ba lépp yomb. salatu ala gis nga gis nga gis nga sëñ Pape. salatu fi ne boo am na bu ñuy wax allahuma salli ala al mawsuuf bil karami wal juudi. kim yaawu la kim yaawu salatu ala nabi la. maanaam fi ne nit ku ko soxal di ko doxal di ko liggéey. sunu borom dana la may wërsëg ba doo soxlaal kenn. allahuma salli. ala al mawsuuf bil karami wal juudi ala al mawsuuf bil karami wal juudi waaw. nga koy nga koy saxal di ko liggéey sunu borom dana la dimbali ba doo soxlaal kenn kenn kenn kenn te loo ko ñaan dana la ko may. allahu akbar boobu ci sa ci salaatu ala nabi ci salaatu ala nabi yi la bokk am na ci yeneen salaatu yoo xamante nit ki bu ko saxalee maanaam du tawat. du hmm? tawat bay dem hôpital. te loolu yàlla moo ko moo moo ko man moo ko maye te salaatu boobu mooy allahumma salli ala sayyidina muhammad tibbil xuloo bi wada wa dawaa iha wa nuurul absaari wa diya iha wa xuutul arwaahi wa xisa iha wa nuurul absaari wa diya iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi ne ñett fi ne salaatu boobu képp koo xamante ne yaa ngi koy saxal ñetti téeméer boo ko def ñetti téeméer bis bu jot waaw suñu borom dana la dimbali ba doo tawat te it boo tawatee di ko def tawat ji moom du dem kanam ginnaaw day wàññeeku ba jeex la jëm allahu akbar fi ne tey ci ajjuma ji nga julli tàkkusaan ba pare allahuma salli ala sayidina muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nga def ko nga def ko quatre-vingts fois ñu jéggal la mbàkk bàkkaaru juróom-ñetti fukki at allahu akbar mais sëñ bi salaatu ala nabi salaatu ala nabi li mu mën doy na waar maanaam nga xamante ne juróom-ñetti fukki atu salaatu eh, eh, bàkkaar sunu borom da la koy jéggal fi ne boo boo ko defee ajjuma ci guddi comme tey nga def ko ci tàkkusaan bi lool lay def waaye ajjuma ci guddi ñeenti téeméeri at yoo xamante ne nii ci bàkkaar dañ la koy jéggal ci ci ci ñeent fukki ci ci quatre-vingt salaatu ala maanaam li nga wax léegi nga def ko maanaam guddi aljuma allahumma salli ala sayyidina muhammad nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim nga di ko def euh, quatre-vingt fois quatre-vingt fois boo ba pare waaw ñu jéggal la bàkkaaru quatre nga def ko guddi aljuma guddi aljuma quatre-vingts fois ñu jéggal la bàkkaaru ñeenti téeméeri at allahu akbar léegi loolu lan nga ko mën a ameel ci lu dul salaatu ala nabi te salaatu ala nabi nangu na nga am jàpp def ko nga ñàkk am jàpp def ko waaw moom salaatu ala nabi te mënoo julli te jàppoo déedéet te boo xoolee fi ne ñi bind ñëpp ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñi bind ñëpp ñii bind ci science mhm. ñii bind ci ci leneen ñii bind ci leneen mhm. loolu lépp boo ko dajalee li ñuy bind ci yonente bi moo ëpp moo moo gën a bari xamoon nga ni abajada am na ay salaatu ala abajada bi hawaza xataya kala man saxafa daxara daxasa daxasa waaw xamoon nga ko déedéet xoolal fi ne boo jëlee alif bi waaw allahuma salli ala nuuril alifi fii nuuril alifi bi nuuril alifi hadada maa fi xilmi la salaatan wa salaaman daa imayni bi daawi mulki la yaa alifu yaa alifu est ce que xam nga ni tur yàlla la allahuma salli ala siril bayi fii siril bayi bi siril bayi wa ala nuuril bayi fii nuuril bayi bi nuuril bayi hadada maa fi xilmi la salaatan wa salaaman daa bi daawi mulki la yaa baaw waaw allahuma salli ala siril jiimi fii siril jiimi bi siril jiimi wa sallim ala nuuril jiimi fii nuuril jiimi bi nuuril jiimi adada maa fi xilmi la salatan wa salaaman daa imayni bi daawal mulki la yaa jiimu allahuma salli fii nuuri daali bi nuuri daali bi bi wa sallim ala nuuri daali fii nuuri daali bi nuuri daali adada maa fi xilmi la salatan wa salaaman daa bi daawal mulki la yaa daalu nga xamante ni noonu koy toppe ba abajada bi jeex ba 28 lettres yi ba 28 jeex fi ne boo ko defoon bis bu nekk maanaam salaatu bu nekk ak arafam nga di ko liggéey ba ñaar fukki fan yi ak juróom ñett mat bu la neexee tegal sa kurus bu liggéeyate kurus bu bis pencee bu la yàlla fayee doo kenn doo ñëwee kenn ku yàlla bind allahu akbar maanaam salaatu ala nabi li ci nekk ci ay xéewal doy na waar ak li ci nekk ci ay jaamu yàlla it fi ne noonu mu amee ci xurufil hijaaiya yi muy abajada boobu waaw noonu la amee ci turu yàlla yi fi ne bu la neexee nga ne allahuma salli ala sirilleehi fii sirilleehi bi sirillaahi wa sallim ala nuurillaahi fii nuurillaahi bi nuurillaahi adada maa fi hilmilaa salaatan wa salaaman daa imayni bi daawami mulki laa yaa allahu allahuma salli ala sirri rahman fii sirri rahman bi sirri rahman wa sallim ala nuuri rahman fii nuuri rahman bi nuuri rahman adada maa fi hilmilaa salaatan wa salaaman daa imayni bi daawami mulki laa yaa rahmaanu nga xamante ne nii benn bu ci nekk rek ci asma ci asmaawullaahil benn bu ci nekk nga def ko turu turu turu turu yàlla ba mu maanaam kon bu dee fataaxu bu dee da ngaa bëgg wërsëg waaw nga ne allahuma salli ala siril fatah fii siril fatah bi siril fatah wa sallim ala nuuril fatah bi nuuril fatah hadada maa fi xilmi laa salaatan wa salaaman daa imayni bi daa mulki laa yaa fataaxu nga def ko 489 mais kon sëriñ bi li ma naan li may wax naan Seydina Muhammad mooy ko sakkan ki mooy ko sakkan ki lii daal mhm. euh, nit kon mën na am tedd nga am mhm. wërsëg mhm. ci julli ci rasulillah ci julli ci rasulillah yi fi ne ki nga xamante ne daa bëgg a ak ci fal gu mu mën a doon ci ngay saxal allahuma salli ala sayyidina muhammad assaabih lil xalqi nuuruhu wa rahmatun lil haalamina zuhuruhu am na lim boo xamante ne nii boo ko dee def di ko saxal ku yalla bind mënulaa teefanu ah waaw allahuma salli ala sayyidina muhammad ku yàlla bind mënulaa tere falu mënulaa tere falu moo xam président nga bëgg doon moo xam ministre nga bëgg ne moo xam directeur société mhm. moo maanaam saxalal saxalal saxalal di liggéey salaatu ala nabi boobu ah boobu xam naa doo ko joxe <laughs> muhammad asabih lil xalqi nuruhu ah? wa lil alamin zuhuru waaye loolu nag sëñ bi am na ci xam ne il faut ko sama téléspectateurs yi waaw danaa moom moom moom yow émission bi émission boo xamante ne nii yonent bi lañ ko tudde rasulullah yi ko de fi ne lépp loo bëgg ci wàllu loo xamante ne nii day jëriñ doomu aadama waaw boo ma ko laajee ma wax la ni la nangam lañ koy defee mais fi mu ni ni dëkk bi dëgëree sëriñ bi xaalis manqué mhm. problème am mhm. nga bëgg saa yoo xëyee am dépense mhm. saa yoo làmbee mu yomb bunt boo dëkk mën mu umbeeku fan sama téléspectateurs yi jàkkaarloog nun lan nga leen di digal ci rasulullah yi ñu jaar ci moom pour lépp yomb na ñëpp bind waaw allahuma salli bind leen allahuma salli ala sayidina muhammad ala sayidina muhammad salaatan salaatan taxtawi taxtawi ala kulli hadadin ala kulli adadin watu sayiduna watu sayiduna biha biha fi kulli baladin fi kulli baladin watu ballihuna biha watu balligu bal watu ballihuna biha watu balligu lana biha fi kulli maxsadin fi kulli maxsadin xam nga watu sayiduna biha fi kulli baladin seetet mooy lan nga def ma ab sang ci mboolem fu ma ma dem dëkk yi maanaam fu ma mën a dem rek nang ma fa def ab patron def ma sang salaatu boobu laa lay ku ko téye jaru ngay mbëkk gaal gi di dem fen ak ku mu doon doo ñàkk dépense doo ñàkk xaalis ku la gis bëgg la ab ab ab ab ab naafeq rek moo lay bañ ku la gis bëgg la ku la gis dalay bëgg noonu la amee ci salaatu ala nabi maanaam salaatu ala nabi mën nga koy wérd mën nga koy bind di naan mën nga koy bind di sangoo moom salaatu ala nabi nangu na lépp mën nga koy bind di naan mën nga koy bind maanaam ñi feebar ñi feebar nekk ci hôpitaux yi wala wala feebar nañ feebar boo xam ni. Mhm. Euh, munu euh, euh, seen ndox. Mhm. yombatul. Mhm. wala am na ci ñoo xam ni dañ naan rab moo leen dugg. man gis naa ñaar ñoo xam ñoo bokk ndey ak baay. mais dañoo am rab mais dañu dañoo dañoo jeex a jeex a jeex a jeex ba. ba ma leen gisee sama yaram sax dafa daw. mais loolu ndax ku am rab. rab ne ci moom. salatu ala nabi mën na ko mën salaatu ala nabi mën naa mën na mën naa génne loolu surtout salaatul fatiha ak jigéen ñi nga xam ni mhm. dañu yàgg macha allah ci ci bindin mhm. euh, neex nañoo bëgg mhm. euh, ci wërsëg yàlla wërsëgal na leen mais mënuñu am borom kër loolu de maa ciy joxe lu yéeme muy muy salaatu allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim boobu yo allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim waaw yaakaar naa boobu moom ñëpp ko mën ndax salaato boobu jaamixun a jàpp moo jàpp cent quatorze waaw léegi boo ko dee def mille cent quarante bu la neexee nga bind ko mille cent quarante boole kook suufu xorondom suufu xorondom waaw maanaam mooy xorondom yooyu fi ñuy dox fi ñuy dox nga tibb suuf si def ci biir waaw léegi bu dee bu dee góor gu amagul soxna waaw mu ma day jël karawu jigéen raxas ba mu set def ci biir bu dee jigéen joo xamante ne amul amul borom kër mu jël karawu góor raxas ba mu set def ci biir saafara si di ko di ko di ko di ko sangoo suñu borom dana ko tànnal jëkkër ji gën wala mu tànnal ko soxna si gën allahu loolu ci salaatu ala ci salaatu ala nabi la ci salaatu ala nabi mais lim bi lim bi ñaata la bu la neexee nga def ko apulaay yaa ngi dégg apulaay apulaay célibataire la dégg nga mhm. bu la neexee nga def ko nga nga. mooy réaliser émission bi. waaw waaw bu la neexee bu la neexee nga def ko. 114 nga waxaat nga waxaat lim bi. waaw allahumma salli ala mën nga ko wérd mën nga ko bind. nga ko wérd bu la neexee nga wérd ko ci ndox nga tifli ko ci nga def ci yooyu ma wax ni yooyu lay àndal. bu ko defee boo ko boo ko dee sangoo di ko sikkar sunu borom dana la tànnal borom kër boo xamante ne moo gën ci loolu. boo dee góor. boo dee góor da am soxna boo dee jigéen da nga di nga di nga am borom kër te bala gënal lay doon. mais sëriñ bi dafa am ñu may woo bis bu ne. Mm-hmm. maanaam li ñu may woo bari na. mooy ñi nga xam ne ñu ngi ci biir sëy bëgg seen borom kër. wala seen borom kër bëgg seen soxna. jafeñ-jafeñ la ñuy dund. maanaam am na ci ñoo xam ne nee nañ ma. ba ñu amee bànneex mooy bi ñu leen muuree yóbbu leen ci seen borom kër. weer bu njëkk wa. weeru bànneex la. waaye dund nañ ay at yoo xam ni. metti na lool lool lool lool. ak ñi nga xam ne dañuy taxaw. pour tas sëyu jàmbur yi. ñi nga xam ne dañuy taxaw mhm. pour dëddale mhm. ñaar ñi nga xam ne ñu ngi ci buumu sëy mhm. sëriñ bi ñi nekk ci buumu sëy di jaamu yàlla te yàlla rek tax lan nga leen di jox ci salaatu ala nabi pour sama yi sakkan gi may wax ni rasulullah moo sakkan nu xam ni tey nag war xam nañu sayyidina Muhammad mooy ko sakkan waaw léegi lan ngay jox ñoom <laughs> léegi bu bu bu xam nga yooyu fi ne dafa bari façon ndax am na ci bari na ñoo xam ne ñi ngi sëy te fekk ni seeni tabiya ñoo àndul ah, maanaam ba ñuy dugg ci sëy ba seetuñu ko seetuñu ko fi boo boo jëlee turu yaay boo jëlee sa tour ak sa turu yaay. waaw jël turu waa ji ak turu yaayam. waaw nga adat ko. waaw yokk ci set waaw di ko wàññi di ko wàññi di ko wàññi par neuf. waaw léegi bu desee un. waaw sëy bi moom du la yokk du la wàññi. bu desee deux. Mhm. maanaam ngoro gu metti lay doon waaye bu ngeen sëyee du ngeen jeexal dara. waaw bu desee trois su waa ji amoon milliard dana yi bu desee quatre. mooy sëy boo xamante ne kii day tawat tey ba wér suba kay jël maanaam nga xamante ne couple la boo xamante ne dañuy dañuy bari dañuy bari lu ñuy tawat bu desee cinq mooy barke wërsëg ak ak ak ak ak sëy bu neex mhm. bu desee six mooy sëy boo xam ne day bari coow dañuy bari coow fu ñu maanaam dañuy xuloo ba ni sip waaye du ñu tàqali ko bu desee sept nag sept moom moo ci gën huit moom it ngoro gi day dëgër waaye sëy bu neex lay doon mhm. neuf mooy tenj tas war a tàqali laa ilaha illallah nga xamante ne nii loolu bu fekkee ni euh, bari na ci ci ci couple yoo xamante ne nii bu fekkee ni xool nañ loolu ba xam ni ànd nañ wala ànduñu wala ñi nga xamante ne nii sëy nañ ba pare xool ni ñoom ñaar kat seeni mbir xool nañ ko te àndul léegi te ñu ngi ci biir sëy bi léegi adat bu njëkk ba ñu adadoon la ñuy génne ci mbiskit ak suukar ak tàndarma. Ah, kon solution am na après. am am na solution bu fekkee dugg nañ ci ba nga. xam fekkee dugg nañ ba takk sëy ba noppi. ñu ngi ci nga xool ni ñoom ñaar ñii kat seen i mbir àndul. waaw léegi bu bu jëlee turam turu yaayam turu ndaw si turu yokk ci set bi ba pare loolu mu ko jox noonu lim boobu. waaw moom lay jënd tàndarma jënd ci mbiskit jënd suukar ñaan ci sunu borom euh, euh, mboolem gàllankoor bu nekk ci biir sëy boobu. waaw sunu borom dindi ko mu saraxe ko jox ko ay taalibe incha allahu rabbi lépp lu ci nekkoon loo xamante ne gaaf la dana deñ parce que am na ñoo xam ne dugg nañ ci soxna soxna si jigu leen comme li mhm. nga wax léegi waaw seen alal di wàññeeku seen mbir di dëgër te duñ ko léegi ko góor kooku lan nga koy loolu am na am na benn secret bu ñu naan xaatikata da du neex a leeral ci ci ci ci biir kii ah, moom kay faaw nga dimbali ñu ci numéro mais xaatikata xaatikata fi ne boo ko bindee nga sangoo ko mboolem bu góor amee gaaf gaaf bi du la wàññi dara bu jigéen amee gaaf it gaaf bi du la wàññi dara Ah. waaw loolu loolu ci ci ci xaatikata la xaatikata la maanaam ku góor ki bu amee gaaf bu amee gaaf ndax maanaam ni jigéen di amee gaaf noonu góor di amee gaaf waaw léegi nag bu fekkee ni jigéen ji moo am gaaf bu ko góor ki sangoo du ko mënal dara bu fekkee ni jigéen ji moo am gaaf bu ko bu ko bu ko bu ko sangoo it moom du mënal góor gi dara loolu loolu loolu mooy mooy secret xaati boo bindee inna bat sa rabbika la sa diidun bismillahi rahmaani rahim salaamu xalu min rabbi rahim wallahu yaxsimuka min annas bu ne ñetti téeméer mhm. léegi boole ko këriñ wala wala ñuulitu ñuulitu cin nga defoo ci saafara si nga sangoo ko mhm. maanaam moom it boo takkee soxna soxna si lu mu la mën a wàññi ci ci wàllu ci wàllu wërsëg ak yooyu sunu borom da dana dana dana la saafaraal loolu maanaam dara dara dara lu lay lor ci loolu du am jigéen ñi nga xam ne sëy nañ lu yàgg-yàgg te amuñu doom te amuñu léegi nag lii tax lii tax jigéen di am doom fi ne na maanaam yàlla moo koy maye yàlla mooy maye doom mooy maye doom mais nag yàlla moo ne ñaan leen waaye bari na yoo xamante ni fi ne nit ki bu fekkee ni mi ngi koy mi ngi koy jëfandikoo sunu borom mën na koo may ba mu am doom lu mel ni istixfaar 3500 euh, euh, góor gi di ko def 3500 jigéen gi di ko def muy 7000 suñ ko saxalee rek suñu borom mën na leen a may ba ñoom ñaar ñu am doom yoo xam doom yoo xamante ni doom yu doom doom yu ah, barkeel lay doon kon ku góor ke ku jigéen ke noo koy waxtaane ñoo ñoo koy waxtaane kii ne sa waay mm. defal 3500 astaghfirullah kee def ko kee def ko waaw ñu saxal ko suñu borom dana leen dana leen may njaboot 3500 am am na yeneen nag yoo xamante ni nii soo ko bindee suñu borom maanaam kun fayekoo nii ci alxuraan maanaam juróom-ñetti kun fayekoon waaw yooyu ni fi ne ni boo ko bindee nga def ko ci ci ci ndoxum sam sam waaw boo xëyee suba nga naan ko boo tëddee nga naan ko di ko di ko def noonu ba mu mat juróom-ñaari fan sunu borom dina la may dina la may njaboot te njaboot gu gu barkeel lay doon njaboot gu barkeel lay doon léegi nag yooyu yëpp yooyu yëpp maanaam lépp loo gis muy problème ci adduna rek am na solution boo xamante ne ni sunu borom def na ko pour mu mën a mu mën a saafara loolu ah. kilib xam ne jàng na ba noppi. Mhm. yor sa xam-xam. Mhm. te amuloo liggéey te bëgg liggéey. waaw léegi salaatu bi ma la joxoon léegi allahumma salli ala sayyidina muhammad as-saabih lil xalqi nuuruhu. waaw wa rahmatun lil aalamiina zuhuruhu. képp ku koy def 70 yaa xam place boo bëgg di ko yóotu mënoo jot wala ngay wut liggéey mënoo jot wala nga tëju. Mhm. sunu borom dana la ubbi ba yooyu yëpp di nga ko mën a am. noonu la amee ci ci salaatu ala nabi. waaw la noonu la amee ci ci yeneen ak yeneen mais mais am na façon càngat yoo xam ne euh, jooni jooni lay doon yoon am na am na jooni jooni fi ne nii bu fekkee comme ni exemple ñu ñu nekk ci mm, lu ñuy xëccoo lu rëy rëy rëy rëy waaw loolu nag du du du du caaxaan moo koy génne mais lu rëy rëy ñu koy xëccoo am na ci yenn yoo xam boo ko fa defee ku yàlla bind mënu laa jëlee fi nga nekk bu dee foo bëgg a kenn mënu laa fàttaree dem te loolu lépp alxuraan la allahu akbar loolu lépp alxuraan la maanaam fi ne damay damay bañ man chaque jour li may bañ mooy euh, alxuraan maanaam xam-xam bu ñuul bi moo gën a gaaw moo gën a gaaw bële xam nga lu tax ñu naan moo moo gën a gaaw ndax ki nga xamante ni day liggéey euh, zulmaani yu waaw maanaam saa su tuddee turu turu suñu borom suñu borom bi daa malaaka yi gaaw leen fajal ma aajoom ndax mu bàyyi sama tur yi muy tudd waaw bu dee nag ki nga xamante ne daa nekk ci nuuraani yu pire buy buy tudd yàlla tudd yàlla gi muy tudd yàlla day neex yàlla wallaahi moo tax suñu borom nag di di déedéet du ko yeexal sax day mel ni lu koy diibal waaw booy demee ba fi ngay bëgg fi ngay bëgg a xàdde rek mu mu dóor la mu liggéey la lool lool lool loola sotti amul lenn lu jàmbi di bëgg lu mu mën a doon fëgg ko ci salaatu ala nabi sa digganteeg sa borom te sunu borom du la ko fajal mënta nekk. mais mais rasulullah daal mooy mooy balluwaay bi. moom moom mooy ballu mooy balluwaay bi. gis nga fi lépp lu nit bëgg ci àddina. waaw boo ñëwee ci Seydina Muhammad mu fajal ko. fi ne gàllankoor yi yi bari nii nga xamante ne ni yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ni. Mhm. sama xeet yi buñ dee fukk juróom-ñeent yi làmmiñ ak bët moo leen yóbbu biir bàmmeel. waaw léegi imagineel finne moo taxoon ñu indi aaya aaya boobu ñu naan wa in yakaadu lazina kafaru la yuzliquuna bi absaarihim xam nga wa in yakaadu baatu wa in yakaadu xam nga ni mooy mooy mooy mooy turandoo sa soppe yonent bi sallallahu wa sallam waaw sallallahu wa sallam finne boo ko calculé rek 92 la Muhammad wa in yakaadu mooy 92 waaw boo bindee Muhammad Muhammad 92 léegi fi ne nii boo defee jël faatihatul kitab waaw nga def juróom-ñaari aaya yi bu ci nekk nga dugal ci 92 wa in yakaadu ba mu jeex nga boole kook ay socc yoo xam ne xamoo seen borom pour ki faju ci wàllu cat ak wàllu liggéey ak xeet yooyu maanaam socc yoo for socc yoo for nga boole kook saafara si di ko sangoo ku yàlla bind mënu laa liggéey te lu mu fekkee ci yow ci ay cat day deñ allahu akbar moom moom wa in yakaadu wa in yakaadu fi ne boo xoolee suratu yaasin euh, ñetti téeméeri miim la ak juróom benn trois 306 mu jàpp xaxaaru waaw fi ne boo bëggee noot say noon ba say noon duñ la mënal lu yëlla dara dara dara dara nga tëleen nga xamante ne fi ne ku même bu nu jógoon sax jëm si ci yow amaana ñu am jafe-jafe ndax léeg-léeg da ngay gis koo xamante ni day nekk ci famille mhm. yàlla ubbi ko léegi nag mhm. maanaam famille bi bu fekkee ni téeméer la mhm. yàlla moom la ci ubbi mais famille bi du leen neex ñu koy ñuy def seen i def def ak yooyu mais fi ne bu jëlee yaasin boobu diggante mim bu nekk mim ci biir mim yi mu cay dugal ba indekaadu ba trois cent six yi mam mu boole kook euh, xeeru jullikaay boole kook ndoxum géej di ko sangoo ak lañ set maanaam ñooñe nga xamante ne ñoo koy xeex moom seeni mbir du jëm kanam mukk dañu am jafe-jafe rek ci ay jafe-jafe rek ay jafe-jafe la ñuy def waaw te bu ñu bàyyi bu ñu bàyyi tooñ baaxul daal te bu ñu bàyyiwul nag ci ginnaaw lañu jëm maanaam dañuy dem dañuy dem waaw dañuy faatu waaw ittaqi da'watul mazluma waaw nañu moytandiku ñaanu ku ñu tooñ ñu tooñ nit boo ko tooñee lu mu ñaan yàlla mën a yàlla koy nangu bul fàttee abonné bul fàttee abonné